daleen ak jàmm ñetti soxna yi fi Cheikh Béthio Thioune bàyyi desuñu ginnaaw ci xeex bi ñu sumb ngir daan coronavirus fii ci réewum Sénégal lu toll ci ñaar fukki million la soxna Aïda Diallo yëkkati ak soxna Boteur ak soxna Adja Saliwu teg ko ci loxo yi nguur bu Sénégal ngir jàppale leen ko ci lutte contre Covid 19 bi bile geste nag ñu ngi ko amal ci weeru avril bi nga xamante ni dafa nekk ab mois boo xamante dafa am importance loolu ci dundinu cantaakun yi ndax kat le 17 avril 1946 ci la seen jëwrin ja Cheikh Béthio Thioune daje woon ak Serigne Saliou Mbacké ba tax cantaakun yi di ko màggal at mu jot bu 17 avril ñëwee mu mel ni kon weeru avril weeru bànneex la ak mbégte ci cantaakun yi bile geste nag na la marqué bu baax histoire ndax kat lu yàggul dara soxna Aïda Diallo yëkkati woon na lu toll ci 15 millions joxoon ko état bu Sénégal ginnaaw bi mu jënd ay denrées ngir nécessité yu bëri yóbbu ko foofee ca Medinatu Salaam di dëkk bi nga xamante ni fa lañ denc Cheikh Béthio Thioune seen soxna Aïda Thioune soxna Aïda Thioune bu baax mi jàmbaari Serigne Béthio ji jaam jaamaatu Serigne Béthio bi nu koy siyaare bu baax ak njabootam universel waaw waaw universel soxna Bator Thioune jàmbaari Serigne Béthio ji jaam jaamaatu Serigne Béthio waaw waaw mu nga noonu di leen nuyu di déggee mbokk taalibe yi wax dëgg yàlla ñu di ko lii rafet na